sant yàlla rek sant yàlla bu wér te xam ne lu jot yomb sant yàlla rek wax alhamdulilah ñëpp seen bopp yee nekku da sant yàlla bu baax rek di ñaan yàlla mu yokk mhm. waaw yàlla ma nga xam ne ma bërëm lépp daal ñu ngi koy ñaan rek sant rek waaw metti na kay te sa ñëpp koy yenu mais yow sax yow yaa ji sax di nga xaw a tane parce que boo demee di nga gis di nga gis sa doom xam si yéen position la ne waaye ñi nga xam dañu yanu te gisuñu ñoom ñoo gën a metti waaw waaye yow mi xam ne yow du soo eggee di nga gis sa doom xam si li mu nekk moom du am problème parce que boo waxee nit ñi sax du dañuy dañuy xalaat defe ne yow affaire yaay la waaye sant yàlla rek sant yàlla maanaam loolu lépp si yàlla suñu borom rek sant rek. ah bett na ma kay bett na ma parce que xam naa ne du moom fu nu ma sa waxee man leen du ko ma sa doom. ndax xamu ko sax ku mës ta génn kay foo koy xamee loolu moo tax. kon tamit euh, liberté provisoire bi newul lu la bett. ah parce que tamit xam naa ne bis bu taxawee rek danañ xam ni moom li mu wax lu dëgg la lu nekkul moom loolu nekkul si moom tamit du sa nekk si moom. dëgg la ndax ku jur sa doom tamit ñu xëy xëy jël si ko rek di xalaat. xalaat ndax doom moom moo metti waaye lépp dama ko delloo si yàlla rek toog gëm rek xam ne yàlla moom buur la rek lépp bu ko waree jeexal day jeex incha man man suñu waxee man leen man ah manuma ko wax parce que jànguma loolu laa leen wax comme ni nga wax nii bu mu depuis commencement ba léegi du ma ndax naa man xaw ma histoire bi xaw ma nu mu demee parce que comme affaire yi message la te man jàngu ma moo tax suñu waxee ma leen man ah xaw ma nu mu demee de jël si nañ ko daal nee dafa def message waaw waaye léegi la bu yàlla leeralee moom mi xam ne mooy borom yëpp sante nañ ko yàlla rek mhm. waaw ñu sant yàlla rek damaa toog si yàgg rek ñu ma téléphone heure bii rek comme nii rek timis masalam mun ma yaay dañ ñu may yóbbu man pour man sax defoon naa sa affaire yi boppam la après ginnaaw gi laa xam ni dañ kaa jël si waaw dund bu métti rek comme ni ko nit ñuy dund rek boo amee problème rek waaw ma ànd sama xol ak sama maîtrise daal di ànd ak sama kii rek sama sagal ak sant yàlla rek ndax ma dama koy gis chaque jour dama doon dem si moom mm-hmm. tëb ma tëb boobu rek ma gis ko mm-hmm. chaque jour weer bu ma génn dinaa si dem ñaari yoon wala ñetti yoon chaque jour maa ngi sama doom xam na man si yenn position la nekk rek sant yàlla rek. Ah, metti rek ñëpp koñ bi man déggoo ma la kees amul Sénégal amul Médina Fall moom képp kuy doomu Médina Fall soo tëddee sa Ousseynou Diop nga yeewoo. képp laa la wax ku dëkk na Fall rek ak ku dëkk Médina Fall soo tëddee yow xamal turu Ousseynou rek jàng ko rek bul ko xam sax xamal ni yow kii rek dañ koo jàpp si lii rek yow yow def nga sa bopp si Ousseynou Diop. ak ku mu mënti doon yàlla boo ma xam doo ma xam sax doo xam sax sama doom da ngay dugg si des fois oto sax ñuy wax problème bi di si métti lu ba yow defe ne kooku moo ko jur fekk yow kooku bokkaloo moom dara soo gestu nu maa yaayam day waaru si yàlla suñu borom nga xam ne lépp nag sant suñu borom la lépp da koy delloo sant yàlla rek lépp daal dama koo teg si mbir yàlla sant rek mu bàyyi ko faaw rek ñu bàyyi ko rek bañ ko topp dara àddinaam deg mu jeex ah sant yàlla rek ñu bàyyi ko mu jàng rek continuer rek mu am liberté boppam rek comme nit ñi comme moro comme moroomi élève bi rek mu dem jàng rek te yàlla tax am liberté boppam am ay këyitam normal lépp maa ngi taxaw di leen ko ñaan rek ci nguur gi rek. mais soxla aussi ñu dimbale ko ci wàllu njàngam fayal ko ah. loolu kay bëgg naa parce que kenn ku ne moom boo sañoon tamit sa doom continuer di jàng jàngam it normal loolu te maa ngi leen koy ñaan rek lépp luñ si man nag nan ma jàppale aussi ñu si doon jàppale ba lépp am nan si jàpp rek. ñu maytu rek Facebook bi daal. nan maytu nan yem si wuyu ak woote ak seen problème yi bopp bu ñu dugg si problème bi kenn li may wax Facebook bi moom képp ku si nekk rek defal si li la war jàngal sa jàng am sa problème yem si ndax parce que voilà kenn ku nekk rek léegi la yemal si li nga war a yem rek waaw comme xamoo affaire bi ni muy demee li nga xam wax si li nga xamul nopp si waaw bépp ndaw daal maa ngi lay ñaan nga yor sa portable li nga xam wax ko li nga xamul noppil li nga xamal ni xamoo lu mu lay jural ëllëg xamal li nga xam ne yow soo ko defee di nga am jàmm képp ku si jàpp rek ak kilifa gu mu mën a doon xam nga ne yow jàppal ni yaayu Ousseynou wax na la waa ndaxte ñi si jàpp dafa bëri mënumaa tudd turu kenn te su ma limee damay juum bépp kilifa boo xam ne yow jàpp nga si rek xamal ni yaayu Ousseynou tudd na la bu bu tudd sa tur rek xamal ni moom it gëmal ni moom tudd na la dafa mënul nekk di lim kenn ndax dafa bañ a juum waaye bépp kilifa bu si jàpp rek yaay Ousseynou gërëm na la ak ku mu mënt doon ak ku mu mënt muy xale bi muy mag muy ñëpp ak ñu toog seen kër yi yónnee njaan sax xamal ne yaay Ousseynou gërëm na la Sénégal monde entier amul France fépp nañ may woo état li ñëpp dañ may woo fu nekk nañ may woo jàpp si comme jàpp si ba yàlla def nii kon tey dañuy ànd sant yàlla bu wér te xam ne yàlla rek mooy kenn yàlla rek mooy kenn ko ñu delloo ko lépp suñu borom wax ñun ñëpp alhamdulilah sant yàlla rek ndax li indi lii dana indi leneen si kàttam suñu